yàlla may leen ñu guddi ci fan te yàlla yokk leen ci barke yàlla yokk leen ci sutura ñu ngay sant ñëpp ku ne xam na ni lu mel nii kese kese defu ko njaboot yi mobilisé wu kenn ku ne à ñu bokk ci dayira ñu bokkul ci dayira ñu amee parti politique ak ñi amee yeneen regroupement yooyu yépp léeg-léeg nga gis sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj gi nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan la dafa am ñoo xam ni fii ci senegal boo jógee ni ci Moustarchidine yi laa jëm duñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru ko Moustarchidine soxlawul kenn na yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ni danga nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le coma ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Wade Khalifa Babacar Wade ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé Niang parce que ci de leen la ñu jëm te ëpp naa bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu ci ne sax du demati këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jaar gannaawam def leneen waaw kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rekk moo ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa ni lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew di nga am loo comprendre waaw mais yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rek am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma waaw ma lànk recevoir waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon bu dee doo ma recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla bindee la leen yàlla bindee mais ñun sunu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw et bu ko defee kon nag dañu tudd Yewwi Askan Wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defee yàlla rekk a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de ma defe ni kon nag ca loola it laa dëgg ba duma Macky Sall duma yu saf-sap waaw li nit ñuy soow yépp soow soow soow man wóoroon na ma ni dafay dem mu des nag lay ñëwaat suite ba ndax am na loo xam ni pareegul waaw bu ko defee kon nag may ñaan nit ñi rek ñu ànd ak seen xel ànd ak seen sago te itam rekk bañ lu riir rekk nga topp ca di dardari